waaye tamit gestes yi nga xam ni de façon individuelle nit ñi moom la ñu war a adopté li les gestes barrières nañ ko respecté strictement nañu lu aussi si li nga xam ne moom la ñu wax les comportements d'hygiène yu mel ni le lavage des mains l'utilisation de l'alcool gel et cetera loolu ñu gën ci góor góorgóorlu bu baax a baax beneen bi mooy euh, kilifa gi décrété na couvre-feu diggante vingt heures ci guddi ba six heures du matin période boobu kenn warta génn na nit ñi toog ci kër yi su ko defee euh, force de défense et de sécurité yi nga xamné ñoo nekk sur le terrain ñu mën leen yombalal seen liggéey aussi jot nañ ñu rapporter né sur le terrain surtout dans la commune de Bignona am des actes de défiance yu ñu yu ñu wax yo xamné yenn jeunes yi ñu koy am ci à l'endroit des forces de défense et de sécurité mais lolu du yoon dëgg la force yi dinañ def seen liggéey ni mu waré parce que on prendra toutes les dispositions pour le pour que le couvre soit respecté strictement sans exception waaye nak bu ñu sañoon population ci seen bopp approprié wu la mesure euh, respecté ko il est vrai que la grande majorité ñi ngi ci logique boobu vraiment respecté nañ couvre-feu bi mais yenn écart yi daal vraiment bëggatuñ ko gis te na nit ñi xam ne yëf yi c'est sérieux nañu respecter strictement li nga xam ne moom la ñu jël ci ay mesures rawatina nag mesures yi nga xam ne dafa jëm ci tere ay rassemblement ak mesures yi nga xam ne jël naa ko muy ay mesures complémentaires yu mel ni fermeture gare routière yeeg yooyu le transport interurbain est interdit waaw donc nous aussi nous ko respecter strictement Et am nañ yaakaar ni euh, ñi nga xam ne ñu ngi traîner les pieds ba léegi danañ gën a góorgóorlu